avec le président de la république man mii bu fekkoon affaire authentique la mun naa taxaw ma ne Amadou Ba du buñ ko da buñ ko sampee du d'accord mais dafa am ñu génn télé taxaw ñu ne que que ça soit A que ça soit B que ça soit C il est candidat kooku kay ñun jàpp nañ kon président bu choisir que mu ñàkk choisir moom day dem. mais en 2012 léegi xam nga moo renoncé loo si on se rappelle bien. mais Macky Sall renoncelul kenn candidature un problème négociation en 2012 da ngay doon candidat ma doon candidat qui doon candidat qui doon candidat ñu ñëw autour d'une table ma ne man de laa wax yaakaar na ne sama profil moo gën a profil yeneen yi nga xamante ni gis nañ ko fi ñu ne non, nañu waxtaan Macky Sall ñu ne ñu 2012 nous sommes. coalition Macky 2012 dañu sommes premier tour ñu bëri loolu xamuñ ko ñu bëri dañoo yaakaar ne coalition Benno Bokk Yaakaar moo gagné 2012 non Macky 2012 moo gagné premier tour premier tour deuxième tour si la coalition Benno Bokk Yaakaar ñëw moy li ma lay wax. damay départ man amna naa amna yakar ne war naa mën a gagné ma la fallu kay ñu and yow en tant que candidat renoncé wu ma la de dama ne la kay ñu and talal la lo la amee. so ñëwé non non non non soo ñëwee. soo ñëwee autrement. non c'est pas renoncement autrement soo ñëwee accepté ne. non so ñëwé accepté ne tu es avec moi. soo ñëwee accepté mais am na ñoo Mais ne tey. mooy abandonné am na ñoo xam ne xamul ñuy bokk ci coalition. xam nañ ne buñ demee duñ gagné xam nañ ne buñ demee duñ am dara am na ñoo xam ne il te dit balaa élection yi di jot ñu ne la. ñu xam nañ ne duñ kenn xalaatu ni que ni dina jël pouvoir bi en 2012. lan moo ko yóbbu élection. ah euh, euh, mënoon doon Aliou Ndiaye wala mënoon doon keneen lan moo ko yóbbu élection pourquoi Aliou Ndiaye n'a pas décidé d'aller aux élections lan moo yóbbu élection de président de la République ay compromis comme ni nga ko waxee ay négociations. mais jeex na kon kay le président n'a pas fait renoncer à dañuy trouver ak dañoo trouver dañoo trouver ay terrain d'entente ñoom ñoom ñu toog. compromission toog ne kii na bàyyi lii kii na bàyyi lii pour ñoom ñoom ñu mën a ànd. mën a am doole mais jàppoon ni la logique voudrait que ni ñooñu toogoon si table bi 2024 ñu daal toogaa si bi. si la nekk. réunion boobu la président woote. non non amaana ñee ñu si dolli. non tey Amadou Ba tey toogoon si table ba. non dañ ko njëkkee de. amul <laughs> tey Amadou Ba tey toogoon tey si table ba. si suñu parti lañ ko njëkkee tey euh, ñëwaat na tey si table ba état d'autre état d'autre ñuy créé loolu amaguñu woon secrétariat exécutif au sein de l'APR Aly Ngouille Ndiaye il est de l'APR créé wul partim de il est au sein de l'APR alliance pour la république bi ñu amee secrétariat exécutif dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw rejoindre ñu dugal leen ci biir hmm. secrétariat exécutif hmm. mais parti buy réunion secrétariat exécutif lay réunion président il n'a plus le droit di war a waxtaan ci APR woo Massamba woo Fallou woo ñetti ni dañuy ñëw leen ñu toog il n'a plus le droit en tant que du parti xam nga lan la am droit léegi buy wax ci parti bi mu dem secrétariat exécutif woo ñi bokk secrétariat exécutif ñu toog fa mais Amadou Ba il fait partie du secrétariat exécutif wala yow da bëgg ñu def li ñu defoon 2012 Aly Ngouille kaay Mimi Touré kaay ñoom ñeent ñu toog waxtaanee ko loolu ça ça ne peut plus être xam nga lu màgg actuellement. Ah, te màgg boobu non màgg euh, si am ñeneen ñu ñëw wàlli si yaan non màgg bi man dama koy accepté ah. xam nga dama koy accepté parce que man loolu laa doon bëgg loolu laa doon wër fàllu gis nga nit mënoo doon nit ba pare bëgg doon leneen man mënuma taxaw ma ne su ma sañoon APR mooy ëpp doole ci réew mi mais ñun ñi fi nekkoon rek ñun ñoo fi nekk loolu mënul nekk pour mu am doole il va falloir ñi nga xamante ne am nañ doole ci réew mi ñëw rejoindre ñu mën a ànd pour ñu mën a am doole mais ñooñu tamit mënuñu ñëw rejoindre ñu ñu ànd di liggéey am performance di am résultat à la dernière minute ñu wara a ñu ne non ñun ñi fi nekkoon ñu ne neen suñu biir. ñu ne mais la logique voudrait non non non non non c'est pas une question de logique. mais la logique voudrait que ce euh, euh, n'est plus c'est Aly Ngouille il fut un premier ministre. ce n'est plus une question il fut le ministre de l'intérieur. il fut le ministre de l'élevage et pas mal le ministre des mines. Ce n'est plus Donc, moi, président Mexa, nous avons même trajectoire, excepté le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus de logique, c'est plus une question de logique, mais une question de droit le droit qu'Alingo Ndiaye a au sein du parti, c'est ce même droit qu'Amadouba a au sein du parti. C'est ce même droit que le militant qui vient fraîchement d'arriver hier a le même droit que Alingo Ndiaye et Amadouba. Okay. Lolo moy ñun à parti Ce C'est pas une question de logique, ay non, barki dem ñun ñofi Donc, donc déduire si vous êtes vous n'êtes pas encore prêt. Non, xam euh, pour la pour sen candidat. parce que instant bi non <laughs> avant kii dafa génn na leen démb euh, Ismaïla Madior Fall dafa génn candidat bi c'est en contumace <laughs> tan nañ ko pare nañ ko làq <laughs> man ma japp ne gis nga Fallou buñ togon bañ hmm. ñu suwale élection. ñu tan candidat au sein de la paire, au sein de la coalition Benno Bokk Yakar. ce candidat là va gagner xam nga lu tax. duñ si vous présenter quelqu'un qui se trouve au sein de la Benno Bokk Yakar. Euh, à la population tollootuñ foofu te leneen li tamit mooy gëm nañ la population. non tolluwuñ foofu xam nga la xam nga la. si Mame Dakar gi li nga xam bëriwul. waaw tolluwuñ foofu Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo ñi xam ko ñi xam Dakar bëriwul. waaw dama ne ñun la responsable euh, ñu ne amul phase. waaw dama ne Fallou euh, Parcelles mënu koo gagné. Fallou il faut ngeen présenter. il faut ngeen présenter Sénégalais yi. je dis la politique c'est une cotisation je dis la politique c'est une cotisation c'est pas une question de personne c'est pas Mame Boye choisi en tant que candidat de Benno Bokyaka qui va aller gagner Nyoro. Non c'est pas le président de la République qui est venu gagner ah, Nyoro. non, ce sont les responsables. Non, non, je l'ai expliqué. Mais base, non, l'a C'est pas, c'est pas une question de base. Non, si. Macky Sall, bimi jël rémi 2012. il ya encore wax sank ne ken parce qu'il n'avait pas de base politique. Nañu waxante deug. Macky Sall ça, lu 2012. Non il est venu il a trouvé des responsables battants yo yu au niveau de mu Il ñu leen présenter programme ñu jël programme bi lire ko programme bi gën ci réew le travail à la base ñun ñoo koy def man

est-ce que tamit tey loolu wul euh, justement wa mané ne ci jamono jooju noonu c'est-à-dire tolloon jamono ah. jooju mané kon le monde a euh, a révolu d'une part donc est-ce que quoi qu'on puisse donc euh, serait préférable pour seen candidat Je le dis si war am base parce que tolloot ni fo xamni ne tam doone ki na fi jóge rek ku fi toog ceux qui ont fait gagner le président de la République si aujourd'hui le chef de l'opposition Ousmane Sonko gis na ne na xam la leen ci ay bureau ceux qui ont fait gagner le président de la République en 2012 hmm. ceux qui ont fait gagner le président de la République aux élections législatives de 2012, ce qui ont fait gagner le président de la République en 2014 aux élections, aux élections locales. Jusqu'en 2022, ce sont ces mêmes responsables qui vont faire gagner le candidat de la coalition Benno Bokk candidat bu ko neexoon mën na pas a génn déggoo li la ñun Benno Bokk Yaakaar man le naa candidat bu ñu ko tànnaloon ba ñu ne suba la élection parce que dina génn ci bulletin évidemment si vous gi la wax ñu def communiqué ne fallu mooy suñu candidat Benno Bokk Yaakaar suba bu ngeen demee ci bulletin yi nii la photom bi mel ni ngeen koy gis ñun ñu dugg ci dëkk bi ci guddi gi nit ñi voteel ko c'est l'essentiel xam nga le problème qui se pose moy c'est pas une question de base dama ne da ngeen jógee 67 wacc ba si 49 c'est normal politiquement c'est normal ñun ñi nga xam dañu def politique loolu tiitalu ñu mënuñ fi nekk depuis 2012 da ngay di toll fenn foo xam ne tu es en CIT puis bul fàtte 2000 2000 2000 2000 2012 bi gagne gagné élection avec la coalition mais 67 2012 bi gagne la coalition Benno bokk avec 67 65 hmm. on était avec la coalition Benno bokk dans son ensemble Idriss Seck il était avec nous Malik Gakou il était avec nous Khalif Sal, il était avec nous. 2019 bi gagne gagné élection avec 58 Malik n'était pas avec nous Khalif Sal n'était pas avec nous Idriss Seck n'était pas avec nous génneel ci gagné li ñu xanaa kon ñooñu 7 pour cent la ñu am ñoom moo tax ñu ni am 58 pour cent non Fallou bu ñu baromètre yooyu bu ñu ci taxaw ne loolu la ñuy tànnee candidature wala loolu mooy tax ñun ñuy. rek mais local yi ak législatives yi euh, dama ne euh, euh, mën nañu ñëw à ces élections là gagné ko à 60 pour cent et je vous le dis aujourd'hui au premier tour au premier tour. la la coalition Benno Bokk Yaakaar va gagner au premier tour te dinaa ñëwaat fii wax la ko xam nga c'est pas une question de mais aujourd'hui l'offensité de l'opposition Ousmane Sonko aujourd'hui <laughs> ñu bëri xalaat nañ que élection su amoon euh, balaa balaa euh, ñu ñoo julli tisbar euh, mu gagner élection yi. mais quand même nak lolu ku mu neex nga wax ko man man bi may ñëw fi dama ne ba ma déparé sama kër midi bala 13h ma yegg ci wàllu ku mu neex wax ko ku mu neex nga ne tay bu ñu defee élection tay tay tay tay tay bala ñuy wax 10h ma la mais waxon nañu ko fi. 2019 fii Ousmane Sonko guen ak ñi andal ne buñ défé élection la wax bala ñu wax midi Macky Sall wàcc deuxième tour ça du ba dem 2019 vous vous rappelez de ça on a gagné avec 58 dañ leen laminé bu baax 2022 bi ñuy ñëwee loolu lañ fi waxaatoon. élection législative ah, non dañ né dañ ah, ah, am nga wax. mais c'est la cohabitation xam nga wax. Euh, ñu n'était le député de Pape Diop aujourd'hui on aurait dû. parler non xam nga wax. Euh, d'une dissolution de l'Assemblée. mais mais xam nga lu wax non Macky Sall du am majorité cinq députés sax du ko am dinañ ko door bu do am sax cinq députés. mais amoo majorité amoo leen majorité wa num démé demee waaw nu on a eu combien de députés xam lu ci mënta am rek ëppalé wuñ ñu. mais loolu discours politique la mom la la wax tay ji fallu c'est normal nit Ousmane Sonko yi mais Idriss Seck lu ñu wax du ñu ngi opération lan wëñé ko depp si. ñoom nee nañ bu ñu élection c'est sûr et certain que en 2024 buñu démé élection ils vont gagner ana wa Karim Wade nee c'est sûr et certain que bu Karim Wade ne cëpp ci dëkk bi bala ñuy wax midi élection yi fété ñun wa coalition Nous yaakaar ñun duñu wax xamul duñu wax ñun mënuñu wax jëf <laughs> ci terrain di nga ñi man dis j'assure ma commune l'autre va assurer sa commune l'autre va assurer son département l'autre va assurer sa région mu le problème qui se pose, ce n'est pas une question de personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt pour continuer avec Bernard Bokyakar Mais attends, le Sénégal va continuer avec qui S'il ne continue pas avec la coalition Bernard Bokyakar, quel est le meilleur programme du, le programme de, du, euh, euh, mais, mais, là où on parle, d'une justice partielle, là où on parle des détenus politiques, là où on parle euh, justement de Djemsi, euh, le, développement, et d'autres, et d'autres depuis que le Sénégal et le Sénégal, bien avant son indépendance, hmm. on parlait de détenus politiques. Bien avant son indépendance, on parlait de détenus politiques. Bien avant son indépendance, on parlait de mort on parlait d'émeutes, on parlait, on parlait, on parlait. Ça ne changera rien. Rien du tout dans l'échiquier politique au niveau du Sénégal. Ligne def, moi de nous def rek, nous togat, dialogue, trouver un terrain d'entente, après nous avancer, nous nous nous demandons. Hmm. Tout le monde au Sénégal, si nous avons des mots, nous avons des mots qui sont baissés. que loulou, Détenus politiques, baissés ana Mamadou Dia bezul mais exemple limbi bi keneen ak euh, non si mais lim dafa jéggi dayoo beesul xoolal plus de 1000 on en parle ñan ngay né ne tuddee détenu politique. moy ki nga xamanteni dafa génn talpone ci talibi amul autorisation nga xamné ne kenn du maye autorisation mu taxaw saga nit ñi ndey ne leen ma tay nga japp ko nga ne détenu politique la lu tax ngeen jappé jàppee ñooñu détenu politique man jappé jàppee ma leen détenu politique on compte 1000 personnes sur les 1000 personnes les 95% je dis xam nga lu ñu leen jàppee manifestation interdit ñu génn ne par force dañu manipuler nous manifester taxaw ci tali bi taal arrêté oto yi lakk ay oto lakk ay këru jàmbur lakk ay oto jàmbur lakk université lakk bibliothèque lakk ak mais ku sénégalais yéen war nañ ñu ñu ne ko détenu politique la. mais loolu lépp moi je comprends plus qui est détenu politique et qui l'est pas. mais loolu lépp lu koy ni jàppoon ni. manifestation yu ñuy euh, interdire parce que euh, F24 bi mooy. on euh, l'interdit septième fois ñu koy interdire léegi interdiction léegi sax. mais on l'interdit xam nga lu tax on ne peut pas on ne peut pas. exception la l'euro. a war a doon. non Fallou mënuñu jël dëkk bi poñe ko. mais mënuñu mënuñu jël dëkk bi poñe ko. ci manifestation non yëngu-yëngu gëj na fay am yëngu-yëngu gëj na fay am. chaque jour manifestation. non yëngu-yëngu gëj na fay am nag. dana fi gëj a am xamul dana fi gëj am. parce que depuis ña ñi ko ñi ko def ñëpp ils sont éradiqués. ils sont éradiqués. nañ leen c'est normal pourquoi yëngu yengu ñuy c'est mo am ci dëkk bi. mais là on parle euh, pays bu euh, am. démocratie Oui, démocratie ça commence par le respect nga taxaw que ni. Euh, dañ euh, ci que là, dama xam nga quand on parle de démocratie pour vous croyez que démocratie c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de tout ce que tu veux tu le fais c'est la. liberté de non arrêtez arrêtez Fallou nekk ko remettre en jeu. remettre jeu de la justice euh, je cite bien la démocratie xam ça commence par quoi le respect de l'autrui. La démocratie, ça commence par quoi Le respect de la Constitution. La démocratie, ça commence par quoi Le respect des droits. La démocratie, ça commence par quoi Le respect des lois et des règlements. gis nga lolu ku ko jéggi ku nek nekato ci démocratie si lu la neex nga ne États-Unis ñi nga fa dem taw ci mbedd mi nii woo ma la naan café sànni ci mbedd mi sax lolu permettre nañ ko Sénégal di Sénégal ngay gis fi ku nan sa café ñëw ba sa tànk yi mu ko fa amna na milieu yoo xam ne boo États-Unis ngor nga nan nungu si amande lañ lay indil daaj la ko boo ko fay ñu jël la yóbbu mais loolu dëkk boo ak gën a am démocratie États-Unis gis nga ko Allemagne pareil de même Allemagne ñi ma nga faa dem fu la neex nga gaare ci mbedd mi sa oto jël sa oto fu la neex nga gaare ko si mbedd mi boo ko fa defee amande dina la fekk boo ko fay ñu jël la yóbbu la pourtant ça c'est la démocratie mais Sénégalais Sénégalais laa gis démocratie ñu ne non démocratie dafa am kum neex taal pneu kum lakk bus kum neex lakk université kum neex lakk bibliothèque après ñu tuddee ko démocratie. fàllu loolu du démocratie. mais ñii dañoo woote nañu jàngal ko ne yi nga xamante ni ñoo nekk si suuf bu ñuy màgg ñu euh, màggalee mais FRAPP ak waa Y a marre ak waa F24 dañoo woote woon démb dem doxantu wax leen métti si réew mi. waaw dama ne exiger la libération bu Ousmane Sonko ak ses mille détenus politiques fàllu dem euh, encadrer yëf yi. c'est-à-dire euh, xana dem ñafa nekkon nekkoon doon xaar manifestants yi ñoom waroon nañu ko mëna encadrer mais fallu c'est pourquoi pas ne pas les encadrer parce que pendant cette autorisation lepp ñu <laughs> euh interdire. ces mêmes personnes là ñom ñoo doon wax yi doo leen ga doo leen màggali. ces mêmes personnes là ñom ñoo doon wax ne màggal gi dañ ko war a dañ ko dañoo war def de telle sorte que. non déggewuñu ko seen voix déggewuñu ko seen voix. <laughs> non non doo ma mën a seen voix xaw ma lu tax parce que même marché bi bu guéné xam nga lan lañ ci am. déposé nañ noo déposé wuñ ñu daw njëkkante rajo yi ñun ñoo déposé ñun ñoo nangam mais ñoom du ñoom ñooy mars xam nga ñen ñooy mars ñu waxoon ne màggal du am xam nga ñen ñooy mars ñu waxoon ne màggal gi nañ fa dem dagg tiwo yi inondation am xam nga ñen ñooy ñu waxoon ne màggal gi nañ dem taal poste courant yi ba courant du am Touba xam nga ñen ñooy mars ñu waxoon ne nañu taxal ci yoon bi taal ay pneu ba oto yi duñ mën a dem duñ mën a dëpp embouteillage am xam nga ñen ñooy mars ñu waxoon ni képp kuy màggale nañ la lakk ñooñu ñooy mars waaw magal ñoom dañoon nañ interdit et tous les moyens sont bons pour interdire le magal ñooñu lañuy ñuy nit ñi magal yi ba war ñibi ñibbi si ñu bàyyi leen ñuy marché si dëkk bi di don di lo ñu na embouteillage am fi man personnellement bi mo voyager je m'étais dit que damay daw ñibi wala magal gi di jeex parce que magal bu jeexee embouteillage am Dakar ñooñu lañuy ñuy permettre encore ñu marché ci réew mi embouteillage amat mané nañu respecter nit ñi. Fallu, Fallou nañ ñu respecté nit ñi Simei ñoo ko doon wax. waaw mais ñi ko doon wax ñu ngi ci réew mi bari nañ fi moy F24 ak France dégage ak. mais fallu. j'ai j'ai j'ai vu une vidéo j'ai vu une vidéo sur TikTok sur le Saint Coran j'ai vu une vidéo sur TikTok. Hmm. je peux pas l'appeler Baye Fall mais c'est un rastaman yaakaar naa ñëpp gis nañ ko. il disait à Guy Marius Sagna demb yaa may téléphone pour me dire que tuyaux yi buñ ñu ko dagg dinañ dag tuyaux yi dinañ arrêter même SDE ndox sax du am Touba. mais Fallou man mënuma ñëw toog fii jël sama téléphone def nii filmé ne sëñ Fallou moom moo wax ne ma naa saaga la président de la république Macky Sall ma saaga la président de la république Macky Sall après ñu ne la non sëñ Fallou waxu la ko yow yaa def lu la neex mais yow génnal nga def déclaration nga ne man waxuma ko. Hmm. defoo la neex. Hmm. Guy Marius Sagna l'a pas mais damay jàpp ne Fallou kon kooku kooku wax noonu dañ kaa yónni. Hmm. ki nga xam ne dafa dem nañu waxante dëgg une femme dem di dagg tiwo tiwo tiwo pour tiwo pour évacuation d'eau de pluie. nañu waxante dëgg mais kooku ku koy dagg ban intention la am. kan moo ko yónni. mais xam naa ce ñu xaar. non fii nga toog Fallou non attends fii nga toog ce serait préférable mais ce bu bu bu kooku génnee wax loolu Guy Marius Sagna génn démentir ce serait préférable Guy Marius Sagna génn démentir. mais Fallou dagg ci wéy kay. Fallou mais euh, si bonne foi la am. bu leen dagg ci wéy. fii la ñuy toog ay femmes génn ay gars génn nekk au niveau de la diaspora. taxaw ne carrément suñu xaalis bi ñuy cotiser di leen ko jox pour ngeen taal dëkk bi boo leen taalu dëkk bi dañ koy nangu saaga see saaga leen saaga leen wax jaar fu ñaaw jaar fu ñaaw ak ñoom suñu xaalis bi ñuy cotiser di leen ko jox boo leen taalul dëkk bi da ngeen ñu koy delloo du ñu mën di cotiser di liggéey di cotiser di leen ko jox pour ngeen taal dëkk bi. comme dafa am ñu leen financé mais am na <laughs> mais loolu yaa am ko gën a xam yaa ngi ci réseaux sociaux yaa ngi suivre carrément def vidéo live suñu xaalis bi ñuy jël di ko cotiser di leen ko jox ngeen toog ci seen kër yi di ko lekk dangeen ngeen yaakaar ne noonu lay reesee du reesee noonu dinañ leen dinañ leen traqué suñu xaalis di ngeen ñu ko delloo boo leen taalu dëkk. mais c'est ça loolu lépp tey jéemoo leen ci dara mais c'est ça loolu damay jàpp tey jéemoo leen ci dara. non xam nga ala euh, dans xam nga tey. Euh, euh, envoyé leen mandat d'arrêt Akhenaton Fallou Mollah Morgun ak Ousmane Tounkara ba tey mujjul fenn. mais ñooñu nekk ci kaso gi fii Sénégal ñooñu ngeen di tuddee détenu politique yéen sénégalais yéen ñooñu ngeen di tuddee détenu politique tay jii buñ ñu leen jàppoon li ñuy njëkk a wax détenu politique après ñu compte compte ci mille yi ñu wax mille trente cinq mille quatre vingt cinq après ñu ne mille cent mille deux cent mille trois cent mille cinq cent mais état moom def na li mu war a def kenn waxu la mandat d'arrêt international ak ñoom yëpp def nañ ko. jàpp nañ ne def nañ ko mais dangay gis ku ngeen dem. sax laam ñu boole ko si. non non Ismaïla Madior Fall sax des fois nee na des fois am na. am na am na arrestation yoo xam ñoom dañuy juum. non jàpp nañ ne ñoo xam da leen arrêté par erreur. non jàpp nañ ne def nañ. mais am na arrestation par erreur. même euh, euh, aux États-Unis Basirou Diomaye Faye def na benn postam génn gaaw même aux États-Unis poste bo même aux États-Unis yi nga ils sont plus développés en termes de justice que nous même aux États-Unis yi nga ils sont plus développés en termes de de de de qui de nu mu de de de justice que nous amna arrestation par erreur xam nga arrestation par erreur moy lan d'abord, buñu wax arrestation suspect d'abord.